salaamaaleykum mbokki internet yi ñuy bàyyi xel ci seen site bu am solo bii di seneinfo point net wala ñu dem suñu chaîne YouTube Seneinfo International ak suñu différentes plateformes yi ñu leen di jaajëfalaat bu baax seen. teewlu tey nag ñoo am comme invité de la rédaction c'est Ahmed Diane Aïdara moom juriste la nekk membre bu société civile président bu collectif pour la reconnaissance de la responsabilité médicale au Sénégal balaa nga seetlu kon ñu bàyyi ko mu nuyoog ak ñi nga xam ne ñooy mbokk inter inter. salaamaaleykum maa ngi nuyu maa ngi nuyu naka monsieur Diouf maa ngi nuyu bu baax a baax di nuyu aussi say téléspectateurs. di nuyu di sant di gërëm ñëpp di ñaan teewal bu baax li nga xamante ne nii dinañ ko waxtaanee mu nekk njëriñ si wàllu bi nekk njëriñ si képp koo xamante ne nii rek daf ñuy daf ñuy teewal jërëjëf aussi. collectif pour la la santé médicale au Sénégal euh, la. waaw pour la reconnaissance la responsabilité médicale au Sénégal mën nañ ne benn benn daje la boo xamante ne nii ay ndaw dañ ko daje. ay ndaw yoo xamante ne nii amaana ñuy jàng nañ université ñu ne tamit génn nañ si yeneen école yi ñu gis ne li tax ñu sos ko mooy dañu gis ne Sénégal fan yii si ginnaaw dafa amoon ay mbir yu bëri yu xewoon lu si mel euh, yi gaañu woon si xewoon sa si yenn ko waxaat yoo xamante nii mu xewoon si wàllu si santé bi nga gis ne yooyu. ñenn ñi di wax ne càggante la ñeneen ñi ne bii du waaye dogal yàlla mu ngi ne ak ah, lu si a am comme ñun ay étudiants lañ en droit donc il nous faut ñu teg benn collectif boo xamante ne nii day ñëw di leeral lan mooy responsabilité médicale responsabilité médicale mooy su nit ki demee liggéey si wàllu santé amaana su juumee nax ki dañ naan juumeel bi moo ko tey wala juumeel bi kon tey ko bu boobaa loolu la wax nag si la ñu soog mën a engagé li nga ndax boo seetee droit sénégalais euh, mën nañ ne ñaari responsabilité moom moo siy faral di ñëw gën a bëri mooy responsabilité pénale bi nga xamante ne nii day à une condamnation pénale ah la responsabilité civile bi nga xamante ne nii euh, ça appelle à une réparation voilà la responsabilité médicale en tant que telle suñu juridiction yi nga xamante ne nii c'est au niveau national jëluñu ko woon en compte kon ñu ne donc il nous faut dañu koy accepter mën a nekk loo xamante ne nii mooy ñëw di gën a réguler di gën a di gën a réguler li nga xam ne nii mooy secteur médical bi. kon wala déggee nekkul loo xam ne kon daan nañ kaa ko suñu suñu justice réew wala. waaw suñu justice réew comme ni ma la ko rek moo tax tey jii euh, ba ñu demee da ngay gis ne problème si ATK yi demee noonu parce que responsabilité médicale am si. te dañuy wax en droit ne nula crimen sine lege c'est-à-dire que pour nit ki ne lii la wala lii délit la il faut texte bi ñëw ba pare di wax ne lii crime la lii délit mais nag da ngay ne loolu am ba tey jii kon juge bi du mën a àtte si responsabilité day ñëw obligé àtte si responsabilité pénale wala mu àtte si responsabilité or tey boo demee si dëkk yi nga xamante ne nii seen juridiction yi dafa avancé ne ñoo ñëw di oote defee erreur ñu xool erreur boobu noonu ndax tayeef la wala ndax njuumte la. léegi nag man léegi day bokk ci seen xel pour ñu amal disposition boobu mu nekk ci maanaam suñu système pénal effectivement waaw dafa bokk si suñuy objectif ñu reconnaître ko d' abord si suñuy juridiction waaye tamit bokk na si suñuy objectif aussi ñu am code de santé publique ndaxte aujourd'hui ici au Sénégal tey da ngay gis ne la santé n'est pas légiférée da nga e ne ay textes déontologiques rek mooy ñëw di légiférer si seen si seen si amul des textes juridiques yoo xam ne si tribunal yi am ay code de santé publique yoo xam ne day ñëw di leeral santé bi a demee parce que ak lu mu mën a demee rek saa boo waxee bind bi dinañ wax la say yoon ak la sa dul yoon te saa boo waxee lu yoon ak li si dul yoon rek da ngay gis ne damay évoquer droit te saa boo évoquer droit droit c'est des textes droit moom ay textes kon code de santé publique aussi bokk na si li nga xamante ne nii mooy suñu jàppatee ak li nga xamante ne nii mooy la reconnaissance du euh, de la responsabilité médicale au Sénégal. ndax tey ci seen euh, collectif boobu am na ay jéego yoo xam ne jot euh, ngeen ko def est-ce que est-ce que it ñu ngi lim sànq ñoo xam ne ko def ay victime ay am na xew ci wàllum gis am na gën a lim est-ce que tey def am na ñu gën a rapporté wala yéen waaw waaw collectif bi moom bañ ko taxawalee léegi mën nañu si ay weer dong la toll bañ ko taxawalee nag ay étudiants comme man voilà dem nañ seeti ñi ñu njëkk a seeti mooy les professeurs de droit d' abord dañu dem université Cheikh Anta Diop faculté de droit gis professeur de droit yi expliqué leen li nga xamante ne nii mooy projet bi. mu wax ne li ñu bëgg ak suñuy jàppante ñu ne ñu effectivement lii moom c'est quelque chose de parce que jamono ji moo ko laaj jamono dañ ko dafa war avec li nga xamante ne bii mooy le contexte te contexte boobu ne euh, noonu li xew ci waaw ne xew feneen ak feneen dafa bëri woon kon ñu ne nag ñu jóg taxawal loolu noonu dañu dem seeti ñu ay professeur de droit yoo xamante ne nii c'est des professeurs reconnus dans leur domaine ay professeurs la ne ñu respecté leen seen domaine ñu approuvé duñ ko wax dëgg yàlla jox ñu si ay conseils dañu jaar leen ñu jaar leen ñu jaar leen ñu waxtaan nañ si aussi ak des membres de la société civile voilà pour boobaa dañuy taxaw ñëw dëggal suñu bopp wax li nga xamante ne nii mooy suñu objectif waaye aussi en euh, notre niveau discuté naa si ak aussi les médecins parce que projet soo koy def da nga naan da ngay woo tous les parties toutes les parties prenantes nga xam ne ñoo seq mbir mi yëpp ngay woote parce que mbir mi ñi ko seq ñan la ñi nga xam ne dañuy jàng droit ñi nga xam ne dañuy jàng médecine ñi nga xamante ne ñooy état bi état bi nag bon je dirais je ne wax malheureusement mais discuter si ak ñoom noonu. ndax xam naa dina bokk si suñuy jéem yi ñëw ñu leen gis tey ak nga xam ne ñooy la société civile ñoom ñëpp dañ ko réunir dans un dans un cadre ñu discuter si loolu noonu ba am si ay résultats yi nga xamante ne nii moom lañ si bëgg a daal. Mm-hmm. waaw am na solo sëñ Amady Diagne xanaa rek euh, bu dee amoo leneen loo yokk ci mbirum projet boobu yàlla naa am lu ñu jël ci wàllum politique wala. waaw waaw waaw politique comme li ñuy wax rek dañ si woo bépp jeune di si woo l' état du Sénégal d' abord. gis ko parce que dañ dañ législative bu bees nga ay député à l' nationale. ñoo xamante ay député lañ ñu ne yu bees lañ voilà léegi ñoom aussi dañ si woo à ce que ñu rejoindre ko si nga xamante ne nii mooy je ne dirai pas lui mais mais mais mais c' est une demande. c' est une demande sociale. c' la santé légiférer la santé légiférer tout ce qui gravite autour la santé pour bu ko defee Sénégal nekk réew ñu fi dégg ci yenn ñu fi dégg ci yenn bu boobaa voilà dañuy appeler les acteurs politiques les acteurs de la société civile di appeler la jeunesse di les étudiants ñu ñëw rejoindre collectif bi bu ko defee ñu gën a mën a am doole gën a mën a taxaw suñu objectif yi nga xamante ne nii la reconnaissance de la responsabilité médicale ñu am au Sénégal waaye aussi ñu am un code de santé publique au Sénégal.